bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu wasallama wa baraka ala sayidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbih wa xadimihi wa ummatihi wa man tabiahum bi ixsanin ila yawmi ddin bismillahi irrahmani irrahim xanaa mag la déedéet gën la laa laa murit nga yow hani an lakum yeesoo murit ñépp xëy la naw xanaa mag la déedéet gën la laa laa murit nga yow hani an lakum yeesoo murit ñépp xëy la naw xam ak yiw nga booleek ab yarak kersa tey ku dal di aalim di aabid di murit sax ci jëf ndigal sëtum ndam nga ak ñoom rekk sëtub kokki gër mi nga te sag ngër mi sab yar moo ko taaral ku sell nga ndawali yépp buñ doonoo ni res paaka duñ ko daas murit yépp buñ jaaroon samboor bokk laq xaas murit bopp jumaa jaag daara jaay di am bu sax warul wërluwul jag di murit ñoŋ ba lëf du rax sëriñ madun pen nday ab murit dib jullit bu wér ji koy jullitam daa fes jureel këk cofeel gu bir ña di bokki diineem ñoo ko xëy sopp ngir maloom ku laaj bokki kawlax ñam dëkkal suñ waxee nga luum joxub cër mbindéef xeebul ku lompañ ku woomalit gisul li nga yor yàllaay xam ak bamba lam mébét banaa masjidan faxman tekat bor ya topp ko boroomam la doyloo ak sëriñ bamba song ko ba muy jóg yorul ab lim tayit saaxi abbu ko da ko yéene sellam tax boroomam ba wuutu ko defal ko bëggam yéenéem yéwén xol bu sedd am ba tuur ay rangoo ñam ndab lu fees tuuru neel na am xolam dafa set ab pas-pasam wér mu sell lool ku dul yàlla xoolul ak sëriñ bamba an fudul jotit ngërëmam xuuyoo ko ab sëriñam gërëm melom wa mu am ak pas-pasam ñag ko doora dem teyit ngërëmam daa yaatu kër gépp a xëy gërëm ma dun penda jóob mii di murit tey imaam ju xam imaam ju di ab baay faal te mbaay faal ga yit rafet sëriñ jóoba ngoogi ab kemam bul ko wër xarit xamul wone ak xam waarewul gis ko waaru la diraayaam ga moo muur ak riwaayam ku sàmm la xamam fab na def koog der liggéeyal ci bamba moom faqad saara ilman naafian hakada al imaam wegam bamba laajal ak njabootam bu kenn des rijaalan nisaan war ma jam làq xëy na tis kadoon doon mag ca ñoom kay nàmpuñoo bokk war sëriñ bamba lay xool ay gëtam saaxi moom la ja te it mbedd maag néeg baag lëndëm gaa ca bokk yam bu lay jub di raam bàmbaay ki muy gis ci ay gëtam ndaxam wuute ak moom teewulit saahi ngay muriit dadig may fi moom daa néew kemem xusfu a inturiit ña di dawandoo duñ eggandoo xel yi bokkewul ku nekk aw xelam kàttan yi it xam ko yow yamul faqis lam yuqal am xel nga yor xel bu xelliwul lu ñuy jariñoo dum xel xelum xar la saaxiqul sëriñ jóob ci ak doyloom akuk sàmm ak muñam kemam ku ko xam xaar naa la kay kaay wax ma kan ca xam sëriñ jóob ci ak doyloom akuk sàmm ak muñam kekam ko kemam ku ko xam xaar naa la kaay won ma kan ca xam sëriñ jóob ci ak farloom nosoom sax ci jëf ndigal akuk mën a jaa moom yàlla xam naa ci lëf yëgal ku xewle mu yëg day jóg du xeebal mbindeef bisam na doon ngénte mbaa muy céet mbindeef day joxub cirem sëriñ jóob amul ab noon ci mii réew ngirug jagam limub ñadi ay soppeem amul nit ku xëy ko xam wëral kaw lax ak haalaam tuddal tur wa foofu dem ak ay waaju baax ngay dégg doo dégg mukk cam waxam yaru lool xam-xam ba mat sëkk fit rëy te kersaam ga ak maandoom ga ak njub ga lépp a doy du dox maraxan laala du yëkkati ay wagam su lay xool du janloog yow dafay damm ay gëtam su toogee dafay lem ay cëram jublu la moom xamul gàngunaay naay suufay lalam jox na cër boroom ku jaaxle sëriñ jóob ngay xalaat mbaa sa xel du dal ngirug mën a faj aajoom ci ñaan yàlla miy dogal ku yor mbóot bëggoog siiwam di dénkaane moolo day du wor nit du siiwal ay mbiram saaxi maala deey nitug suturaa ngi ab julit dëgg lil xanii ku salla nga nii waajaa ngi nii haakada bu nii faqad saara faxlan murshidan summa caabidan laqad xaaza maa qad xaaza lillahi saajidan ku naa baay fa ndoorong baay sëriñ moo la tax di wax ku naa baay fa madinaat baay ñasay baay bi tax nga wax ku naa baay fa ndoorong baay sëriñ moo la tax di wax ku naa baay fa madinaat baay ñasay baay bi tax nga wax mag ak kum jox loxoom baay ga daldi jib ku xam def ko baay wormaal ko yaa saaxi xadd wajab ndaxam nag dangay mag baay meloom tax nga naa ko baay jikkoom jee waral ñii naa ko baay ñaa di wax nijaay imaam fi solaa dëhëran taw naaj wa ñoo ca yam te majlis ba mooy tër téere yaa jàngalu ñoñam te it téere boo yor ak si lam làq leer la lool luxaak adab ak naxwook arut fiq moom du xool riwaayaat yi yépp ay teew fi moom war su xafs ñoom baxaaluun xasal moom peg na leen buy tareet du juum te suy tari tartiilan la koy def du mooy ndigal warattili tartiilan ndigal laa ngi nii yëgal dafay lox di jooy xawlan saqiilan la moo waral rangooñ ya di tis taqwan sëriñ jóoba jub yëgal taqaatix ya ak iqaax ya suy jàng doo ko tey dangay mujj lab ciy jooy sëriñ jóoba neexa woy sëriñ Mustapha mooy ak bëggam moom la lamb daj murabbihi qad rabbaahu raqaahu moo ko faj faxallaahu idqallaahu ndab lam ko taaj la duy la see ba ca ndab laay masjidam bii mu samp tey su bis ba bépp sàmm teew jofalug juróom bu jot seeg juróom daañ xam ne bi sàmm am na ndam juróom suur te am ruur mos la am poru baani mel sëriñ Mustapha kum sàmm doo jaddu doo fétal kilee sàmm kii xoolal sëriñ mi mu doy misaal ci porloom bu naat cheikh moustapha raw na ñay rijaal kilee sàmm kii xoolal sëriñ mi mu doy misaal ci porloom bu naat cheikh moustapha raw na ñay rijaal kilee naanu kaayam daa dërëm siggi mar wadañ te xiifam ba moo faj lam ragal hëkka moo ko jeg kilee naanu kaayam daa dëtam siggi mar wadañ te xiifam ba moo faj lam ragal hëkka moo ko jañ kiley wéeru waayam moom la def wéeruwaay u xay ku wéeru fi ab dàttam bu dottee nga for lu doy garab la gu dottee dotti foyteef yi man la jeex sëriñ Mustapha foyteef la daa ñor te tab bi neex garab la gu dottee dotti foyteef yi man la jeex sëriñ Mustapha foyteef la daa ñor te tab bi neex te it tem-temam daa bokkewul ku ne lam la saf mënoo koo misaal laajal kamos lam ca mos mu saf te it caf rekk mooy yëg ku làmmiñam yëgul caf ka doonul kay misaal caf ko neel na am sëriñ Mustapha daa neex ci ab xol bu woppagul xolub ku ko gëm kok ab xolam wopp tabbiwul mbërëy kala ruur bay sëriñ moo ko jaggi ruur sampal kom ndëndëm bakkul ko Cheikh Mustapha di góor ndëndëm mooy jumaa ji bàkku wi mbàkku moo di jee dafay jiite ji wuutal kokam muy imaam ca jee imaaman kariman aabidan aadilan wéyal muhibban wa mahbuuban lu dul njub ga moom warul sëriñ muntaqa yeesal ko ñaaxaat ko wóolu ko sampam ba mu rokkas fob medaayam ya ràng ko sëriñ labb lil saw naaru góor fa sukur sula du waaxu du cal day rëpptal fas wu taaru la fasu njub nga war def tegga muy jaamu cig dëggal ngalaabe ko pastéef ak rayug dëggu tey doxal xamoo lu lu baax say cër da cee laggi démb yow négoo ba bi jaaw baax juddu baax gaala teel a gaw ku lay yab amul ci xam ku lay yab ci jaamu it amul mën la am farnay mu xaal gëm ko yow xarit ku lay yeb amul ci xam ku lay yeb ci jaamu yit amul mën la am far nay mu xaal gëm ko yow xarit ñi foog ne murit daa wër la xam jaamukat duhul bu yendoo sa kër buy dellu day rëccu ak di xul murit dëgg nii lay mel wetam yépp koo ci xool dangay gis mu mat doo xeet jëfam benn yoon ak xuul ku yab ab murit daa téewewul saaxi sab jataay ca jàngu ba mbaa minbar ba yaa saaxi mat nga waay ku yab ab murit sab xutba daa téewewul ba tey ku teewe ko bis daa xam ne moom bay du sóoru boy bu dee ab arab day jommi ndeem ak arab lëgëm bu dee ab ajam buy naw arab xam ne yaay sangam te yii yépp xooloo yéemuloo ak murit nga naw sa xam-xam nga def ak der takkaayul sëriñ bi yow guddal fan te wér téeméer yu teg yàlla nga làq yow te sa wér na mat say wër sëgit yokku yegg kaw jumaa ji na rappit sa njaboot def na yow ëllëg tabax ay jumaa ngir yàlla seen lépp wiy di jag satub xaali baabaa wax ci yow lii ngiru cofeel waxaaleel ko bépp soppe lillaahi alwakiil satub xaali baabaa wax ci yow lii ngiru cofeel waxaaleel ko bépp soppe lillaahi alwakiil dagaan naa la ci njub ak njulit ak murit gu sax ci barkeb sëriñ tuuba yu dul yile bu marax dagaan naa la ci wér gudd fan wër sëgit wu doy wu may yaata leg mbaax fépp nag hakaza u xay dagaan naa la ci soxnaa njaboot barke topp ca bu yaatu bu daj leen ñépp jub ñépp seddu ca dagaan naa la seefaa ay liyaas naa ci yor lu doy di ñuqee ko jox nag sab sëriñ haddiyaam yu doy dagaan naa la ci njëggal na buur xëy ma baal itam te baalaale béppub jaam nangul woy wi neel na am wa baada salaati aljumaa laa xatmu woy wi le nangul ma ko ngir yàlla ak sëriñ bamba yow mi le wa baada salaati aljumaa laa xatmu woy wi le nangul ma ko ngir yàlla ak sëriñ bamba yow mi le allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam